ngeen di si ànd seen mbokk Ibrahima Drame ki ñu àndal ci wàllum xarala gi mooy Bachir Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka wa moom mi ñu wërsëgal ñu fekkee ñaari xéewal yam ñuy xéewalal saa benn bi xéewal ba mu askanu jullit ñi waaye ñaareel bi mu doon xéewal ba nga xamante ne moom la xéewalal mboolem bindaafoon yey dukkat ci kaw suuf si kon bu ñu demee xool xéewal bamu mu xéewalal jullit ñi te mooy xéewalu jaamu yàlla mu nekk xéewalu ibaada bi nga xamante ne moom la xéewalal jullit ñi gannaaw bu ñu déggee noddkat bi di nodd di yëglu ci jàkka ja mu woote woote ju mag jooju ba mu àgg fa muy waxee ne assalaatu xayrun min an nawm jullit yi daal dégg woote bi yàlla buur bi tabaraka wa taala yombala leen bi ñu war a mën a yeew ci nelaw ba ñu nekkee te noddukat bi di ni noddukat bi di leen wax ne julli de moo gën nelaw ba ngeen nekkee ba tax na képp ku yalla buur bi tabaraka wa jàppandalal nga daldi jóg waxtu woowu laablu daldi séq ab jéego dem wuyu woote bañ lay woo loolu da di xéwal joo xamante ni yàlla suñu borom tabaraka wa taala bu la ko baaxee dank ka war a sant waaye ñaareeli xéwal bi mu doon ñelaw bi nga xamante ni buur yàlla moo ko xéwalal mbooleem ni ñu di ko jëfandikoo te mu nekk kawteef ba nekk fa moom yàlla ba tax na nelaw boobu ñu jóge ko def ci waxtu su néew ci ginnaaw bi yàlla kàttanal ñu ñu war a mën a joxe waxtuy fajar mu di julli suba kon xéewal boobu da di ba yàlla yore fa moom moo ne ne law boobu da di ba yàlla yore fa moom moo tax mu ne ñu wa min yi bokk na ci kawtiif ya nekk fa man yàlla manaamukum bil leyl nelaw ba ngeen di nelaw ci guddi wan nahaar ak bokk na ci kawtéef ba nekk fa man yàlla mooy bëccëg bi nga xamante ne wabtiqaakum min fadlihi ak xéewal ya ngeen di fàggu ci bëccëg si inna fi daalika lépp la ma leen joxoñ ci nelaw ba ngeen di nelaw ak climat ba ñu naan guddi ak weneen climat bañ naan bëccëg ak fàgguteef ba ngeen di faggu seen wërsëg ci bëccëg soosu mu ngi ci tegtal yamaleen tegtal nii aayatin kawteef boo xamante ne li qawmin yasmaun ña ko war mën a bénéficier wu ñooy ña yore seen xel di xelaat waaye ñu yore seen appareil bi ñu naan nopp ñu di si dégg lépp lu leen yàlla tegtal ci ay kawteefam te yonent bi jàngale ko sallallahu alayhi wa sallam wa tax na nelaw boobu noonu doon kawteef ba jóge ko fa yàlla buur yàlla tabaraka wa taala duñu ne lii dadi kawteef ba ma yore ma yenkee wan leen ko wàcceel leen ko wóor sagal leen ko jox leen ko comme kado yéen sama jaam ñi yéen sama mbindaa foo ni nelaw bi ngeen di nelaw kon nelaw kawteef ba yàlla yore la jamono yañ koy def ak climat bañ koy defee bi léegi da di kawtif ba yàlla yore moo tax mu ne wa min ayatihi bokk na ci kawtif ya nekk fa man yàlla manaamukum nelaw ba ngeen di nelaw ci ban waxtu bil layli ci guddi kon jullu naas la gën a ci nit ñi la gën a ëpp ci nit ñi ndekk ci guddi lañuy ñuy nelaw waaw guddi boo xamante ne climat ba yàlla di installé la ci kaw doomu aadama yi nga bëgg ko nga bañ ko dangay nelaw ndax yàlla mooy installé virusu oxygène boo xamante ni képp ku ko nooy da ngay daal di màndi doo yëg dara sa yaram lu dul dem nelaw kon guddi la yàlla ne jullu naas la gën a bëri ci nit ñi guddi lañuy jëfandikoo xéwal bu di nelaw mu daal di ñu won ñaari xéwal yamu ñuy installeel ci jamono jooju xéwal bu njëkk ba mooy nelaw xéwalu ñaareel bi mooy climat bañ kay defee di guddi ak lëndëmaayam ak dal jafa nekk mu ne ñu ñetteelu xéwal bi mooy wan naxaar ak bëccëg joo xamante ne dama leen di installer projecteur boo xamante ne kenn di ko chargé énergie kenn di ko chargé ak seeni matériel u àddina waaye man yàlla maa leen koy installeel su ko defee ngeen mun na niitoo ci bëccëg soosu wabtigaakum ngeen daal di fàggu lan min fadlihi wursak yeleen yàlla tasal ci kaw suuf si ngir ngeen dem kër-këri ngeen dem ut la nga xamante ne mooy la leen di njëriñ ci seen dund yàlla nee na li joxoñal nii inna fi daalika mu ngi ci lii ma leen wax ni ayatin kawtif joo xamante ne li xawmin ña ko war a bénéfice wu mooy ñan du ñëpp nag waaye yàlla dafa def exception dafa tànn ñoo xamante ne ñooñu ñoo war a mën a gis kawtif bam leen joxoñal ci aaya bi moo tax mu ne inna fi daalika mu ngi ci lii ma leen wax ni ayatin kawtif joo xamante ne li qawmin ñeel ñoo xamante ne yasmaun dañuy dégg lépp la leen alquran wax wala yonent bi jàngal leen ko sallallahu alayhi wa bi tax na yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moo ñu daal di baaxee ci adkaaru istiqaaz min an naw baat ya jullit bi war a tudd jamono bu mu yeewoo ci nelaw moo ne la mu war a tudd mooy dafa waral a tudd ne alhamdulillahi lladi mboolem xeetu cant yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne axyaana moo ma dundal baada ma amatana gannaaw bu mu dogalee ci man faatu di dee bu ndaw di nelaw wa ilayhi suur te saa yu ñu jeexalee dund bi ci moom dong la ñuy dellu duñu dellu ci kenn ku dul fa moom yàlla buur bi tabaraka wa taala kon la yonent bi jàngale fii ne yow julit bi boo yeewoo ci nelaw lii nga war a tudd muy baat bi nga xamante ne da ci war a sant yàlla buur bi tabaraka wa ndax moo la yénkeewal moo la wërsëgal moo la jàppandalal nga nelaw jamono boo koy defee tamit moola la jàppandalal jamono jooju waaw guddi su ko defee danga nga war a sant yàlla ne alhamdulillahi ledi ahyana baadama amatana wa ilayhi nushur mbokk yi ñaan bi yal ko buur yàlla jàppandalal yal ko yàlla woyofal saa yu ñu yeewoo ci nelaw ñu di ko tudd di ko sante buur yàlla tabaraka wa taala mbokk yi yann jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot di leen fàttali ne rek kàddu boroom xam-xam su mag di xasanul basri rahimahullahu taala rahmatan waasian yan na ko buur yàlla yërëm yan ko buur yàlla yokk yërmande moo ñu ibnu aadam yow doomu aadama bi nanga xam te bàyyi sa xel ne innama anta ay yamun lala tax a nekk mooy ay fan ak ay bés yeey ñëw di jaar di jàll di dem ba tax na bàyyil sa xel ne kullama zahaba yowmun bépp bés ba ñëw jaar jàll xamal ne zahaba baatu am na lu deñ ci yow am na la nga xamante ne yóbbu nañ ko gën ngaa jege sa bàmmeel gën ngaa sori dund kon bépp bés ba ñëw jaar jàll danga nga war a bàyyi sa xel ne am na la wàññeeku ci sa dund ba tax na am na weneen boroom xam-xam su mag di abdullahi bun awn rahimahullah moom it nee na comme am na bés yoo xamante ne bu ñu dañee ci sa dund am na la wàññeeku sa dund kon ba tax na danga war a bay sa xel nela la zikru naas daa un wa zikrullah dawaa waaw abdullah ibnu awn rahimahullahu nee na zikru naas daa un di wax li ci nit ñi di wax ay nit ñi di waxtaanee nit ñi nee na loolu jàngoro la loolu nee na loolu jàngoro la la nga xam ci nit ñi nga wax la nga xamul ci nit ñi nga wax ah nee na loolu day jàngoro la ba tax na moom it mu bugg ñoo jox la nga xamante ne mooy faj jàngoro jooju di médicament di ordonnance di garab joo xamante ne saa yiñ ko jëfandikoo rek dinañu faj la nga xamante ne mooy jàngoro ya ñu nekkee di wax ci nit ñi waaw lay faj jàngoro jooju mooy moo tax mu ne ñu wa dikrullahi dawaun nee na di tudd yàlla nag loolu mooy médicament bay faj jàngoro ya nekk ci dënn yi mooy faj jàngoro ya nekk ci làmmiñ yi waaye mooy faj jàngoro joo xamante ne képp ku dëkkee di wax ci nit ñi boo bëggee loolu deñ ba doo ko nekkee del tudd yàlla kon nga gis ne abdullah ibn awn rahimahullah lam la fi bugg a wax mooy del tudd yàlla del sax di tudd yàlla saa su ne del tudd yàlla ci turam yu sell yi del wax subhaanallah del wax alhamdulillah del wax wala ilaha illa wax allahu akbar waaw yonent bi ñaari baat yaa ngi nii dañoo woyof toll ci làmmiñ waaye dañoo diis gën ci balance su peesokaayu jëfu doomu aadama keroog bés penc waaye ñaari baat yooyu buur yàlla da leen sopp fa moom mu ne ñaari baat yooyu mooy yan baat mooy subhaanallahi wa bihamdihi wa subhaanallahi al azim moo tax mu ne ñu kalimataani xafifataani ala lisaan thaqilataani fi lmidan xabibataani ila arrahman subhaanallahi wa bihamdihi wa subhaanallahi al azim yonent bi nee nañu ñaari baat yaa ngi nii woyof nañ toll ci làmmiñ jafewut ngir làmmiñ di ko tudd kenn du ne dama ko daan tudd mu métti wala mu diis déedéet dafa woyof toll yonent bi nee nañu ñaari baat yooyu mooy lan ñaari baat yooyu ne dañoo woyof ci làmmiñ nee nañu ñaari baat yooyu buur yàlla da leen sopp fa moom waaye dañoo diis gën ci balance ba ñuy peesee jëfu doomu aadama keroog bis penc na ñaari baat yooyu mooy subhaanallahi wa bihamdihi wa subhaanallahi al azim mbokk yi baat yi nga ko def sa tàndarma yi gémmiñ nga di ko def sa singomu gémmiñ nga di ko def sa góoro gémmiñ di ko yëy di ko tudd saa yuñ la gis sa gémmiñ baa pat pati sa ñaari tuuñ yaa pat pati parce que baat yi ngay tudd lii moo gën nga toogee di wax ci nit ñi suñu yonent bi sallallahu alayhi wa moo ñu xamal li ni mel mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot ñoo ngi leen di fàttali ne rek ñu ngi ànd ak yéen ci waxtaanu fajar bay jaar fii ci réew Rewmi FM 97 point 5 tey ñu fas yéene leen digtal la nga xamante ne mooy jëf ba doomu aadama rawatina yow jullit bi la nga war a jëf ngir nga épargnel sa bopp nga dencal sa bopp nga daal di sàqal sa bopp yiw bi nga xamante ne donte nit ñi defarul nañ la ko donte kenn du la ko defaral donte kenn du la ko épargnel kenn du la ko dajaleel mais yow nanga ko dajaleel sa bopp ndax buur yàlla tabaraka wa taala wax na la ci alquraanul karim ci ay aaya yu fasante ko ci saaru alquraan yi képp ku def lu jiw sa bopp kon nanga war a géem a sa bopp la nga xamante ni ëllëg sa teraayu bàmmeel cànkay commencé di ko njariñu buñ na ko feyee keroog bés pénc nga xam ne ah lii de maa ko faggul sama bopp ba tax na tey ñu fas yéene leen dégtal la nit di war a mën a épargnel boppam dencal ko faggul ko boppam ngir ëllëg mu njegenaayoo ko ci tiraayu bàmmeel ba nga xamante ni du jaas yenn yiix waaye kenn ku nekk si ñun war nga war a mën a géem a épargnel sa bopp la nga xamante ne donte nit ñi kenn du la ko épargnel kenn du la ko dajaleel kenn du la ko faggul waaye yow nar nga kaa faggul sa bopp doone xawma ko doone jànguma ko waaye képp ku ñu may nopp ñu daldi di dugg ak yow nooy épargnel sa bopp jëf ju jiw joo xamante ne ëllëg keroog bés pénc bu la ko buur yàlla fayee nga doon ci mucc ba tax na buñ demee xool ci téere ba yàlla wàccal suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy alquraanul karim saar ba fan nekk di suuratul an buur yàlla tabaaraka wa taala di wax doomu aadama bi ne xat ca dëgg-dëgg-dëgg jaakum dikkee na leen ba basaa'iru la nga xamante ne mooy gis-gis xoolukaay bu leer nañ te yaatu min rabbikum ba tukkee ko fan fa seen borom kon fa man abu saara képp ku ci képp ku si nangoo xool képp ku si nangoo gindeekoo ah fali nafsihi loolu yow rekk la concerné ah boo nangoo tënk sa bopp ba basairu min rabbikum gis-gis leer projecteur ba tukkee ko borom te mooy alquran ak yamu digle yonent bi num ko jàngalee ak num ko leeralee képp ku tënk sa bopp ci loole fali nafsihi yàlla nee na sa bopp nga ko defal waaye nag waman amiya fa alayha képp ku géem a gumba gumbalu ku géem doon nga géem a gumba nga nangoo doon silmax ci aaya alquran ya yàlla wàccali yonent bi nee tamit conséquence bi yaa koy subir wa ma ana aleykum bi xafiz yonent bi nel sama jaami ne nekkoo fi di wottu di géem a ki tënk boppam ci aaya alquran yu leeri wala ku tënkul boppam ci la alquran andi nekkoo fi di leen surveiller ci loolee waaw képp ku nangoo xool képp ku nangoo observer observation bu leer ba jóge ko ci yàlla te mu doon alquran képp ku tënk sa bopp ci loole njëriñ wi yaa koy dund waaye woo man amiye képp ko gumbu gumbulu faalewloo ko nga fàtte-fàtte ko di ko gémm dumuyu di ko gémm doyadal di doyadal ña koy dund wala ña koy waxtaane ah yàlla nee na loolu yow la waaw ah, bu ñuy mbugal yow mi ko faalewu di yow la ñuy mbugal te dañ la ne nang ko bàyyi xel kon boo ko bàyyee xel njëriñ bi yaa koy dund boo ko dummooyoo tamit conséquence bi yaa koy subir waaye yow yonent wi ne leen wama ana déet man aleykum ci yéen bi xafiid ma di leen wattu di leen géem a contrôler di leen géem a surveiller ba xam am na ku tënk boppam ci la alquran andi walla déet déedéet nekkoo fi di def loolu de bul sonal sa bopp ci loolee waaw kon ñu dégge ci maanaa aaya bi képp ku tënk boppam ci la alquran andi lépp lu alquran digle nga nekk fa sa kéemta lay kattan lépp lu alquran tere nga sore ko sa sa kéemta kattan nee na yow mi mel nii njëriñ bi yaa koy bénéficié wu yaa koy njëriñu waaye képp ku du mooyu képp ku gumb gumbalu nga fatt sa xol fatt sa gis-gis ci la alquran andi yow yonent bi de xamal ne nekkoo fi di leen wattu wala di leen sàmm wala di leen géem a contrôler ba xam am na ku tënk boppam ci la alquran andi walla déet déedéet bu fi nekk sax du sonal sa bopp ci loolee kon ba léegi ñu gis ne képp ku tënk sa bopp li yàlla wax ak la yonent bi jàngale yow la waaye képp koo xamante ne dumóoyu nga ko tamit yow la waaw waaye yenentu bi nekku fi di la wattu di la géem a contrôler de déedéet kon ba léegi mbokk yi nañ leen dem xuusandi ci aaya alquran yay tegtal ne yow doomu aadama ak nu munti mel war nga war a mën a épargnel sa bopp la nga xamante ne mooy la la njëriñ ëllëg bis penc donte nit ñi épargnel wu ñu la dara kenn dajalewu la dara yow war ngaa mën a épargnel sa bopp da lay njëriñ ba tax na yàlla ni ñu ci suratul zumar inna ñun yàlla anzalna ñoo wàccee alayka ci yow yonentu bil kitaaba téere bi nga xamante ne mooy alquran lil si ngir nga leeral ko nit ñi bil xaq ci dëgg fa mane tada képp ku gindeeku fali nafsihi kooku boppam la ñeel woman dalla képp ku sanku fa innama yadillu alayha cànkute boobu daal day retourné wu ci boppam waaw képp nangoo sanku képp ku nangoo jël yoonu cànkute ah cànkute boobu noonu mu opte de moom la rek wama anta alayhim bi wakiil déet yow nga nekk fii di leen saytu wala di leen géem a contrôler waaw gàlluñu la dara ngir nga contrôler nit ñi lañu nekkee ba xam tegu nañ ci ndigle alquran wala déet jaru ko de bu fi nekk di sonal sa bopp ci loole kon mbokk yi ñu gis ne bi léegi buur yàlla tabaraka wa taala wàccoona ak jaam bi ginnaaw bu mu wàccee téere bay tegtal yow doomu aadama bi ana lan nga war a nekkee ci kaw suuf si lu méngoog ngir mànde yàlla mi la fi bind wàccee la ci àddina bi mu jagleel kon yàlla mi ñu bind bindul ñu àddina ba ñu war a dund catalogue bi fi war a nekk ñu di ko sukkandiku pour war a mën a won war a mën a gis war a xam ana liñ fi war a nekkee lu dëpp ak ngir mànde yàlla bu dee ñun rekk rek rekk rek ak doxalinu àddina duñ ko mën a xam waaye buur yàlla daal di ñu wàccel catalogue ba nga xamante ne buñ ci sukkandiku ñu xam fu ñuy teg suñu tànk waaw keñ a ko jàngal mu daldi ñu ko yónnee di prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax yàlla ne ko inna anzalna alayka alkitaaba linnaasi bil haqq ñun yàlla ñoola la wàccel téere bi nga xamante ne danga ko walla leeralal nit ñi ci dëgg dëgg bu fa nekk nang ko leeralal nit ñi yàlla wàcce na téere téere bi am na dëgg yu fa nekk bu fekkente ne woon yenuntu bi du moo ñu ko détaayal ñun ak téere bi rekk rekk rek duñu mën a xam dëgg ba ca nekk dëgg ba yàlla def ci téere boobu bu dee ñun ak téere bi rek rek rek duñ ko mën a xam waa yàlla ci mbaaxam ak ñewent bu mu am ci doomu aadama yi ak cofel bu mu am ci doomu aadama yi mu daal di ni yonent bi nga xamante ni moo ñu war a mën a faram njëriñ ba nekk ci téere bi ak digg yu fa nekk kon yàlla ne yow yonent bi man ihtada aw fa man ihtada képp ku nangoo orienté wu ci digg ba nekk ci téere ba ma wàccee ngir nga détaillé leen ko képp ku ci nangoo tënku fa innama fa man ihtada képp ku nangoo tënku boppam fali li nafsihi kooku boppam la ñeel képp ku teg sa tànk ci la alquran joxoñ nga tënk fa sa bopp nga di ko doxal système alquran nga di ko véhiculer ci sa dund yàlla nee na kooku boppam la sobe waaye nag woo man dal la ha képp ku nangoo jël yoonu cànkute nga bañ ka faale fa innama yadillu alayha kooku cànkute ba mu sóobu boppam la ñeel loraange bu muy subir foofu kenn du ko subir ku dut moom ndax moo opte yoonu cànkute mu bañ a déglu la alquran joxoñ yàlla ne yonentu bi ne nag wa ma anta alayhim bi wakiil déet yow nga nekk seen biir di leen sàmm waaw teguñu la de teguñu la ko de teguñu la ngay sàmm gaañi gàlluñu la ngir ngay contrôler nit ñi seeni nekkin par rapport ak la alquran andi déedéet bul sonal sa bopp ci loolee leeralal nga leen wax nga leen su ko defee képp ku nangoo dégg lanka wax la alquran andi njëriñ bi ki déglu moo koy bénéficié wu waaye waman dalla képp ku nangoo jël yoonu cànkute fa innama yadillu alayha ah yow nu conkute boobu mun opte mu suubu ci day ah conséquence ba fa nekk ak loraange ba fa nekk ki opte yow nu conkute bi kooku moom muy suivre conséquence bi illig bis pinc mbugal yañ koy mbugal moom dong moo koy subir wa ma anta alayhim bi wakiil yow yonent bi nekkoo fi di observer ba xam gaay tënku nañu ci alquran lam leen digal te gàlluñu la tamit nga di leen surveiller kon bu ñu demee xool beneen saar ak beneen aaya muy suratul fussilat dinañ fa gis buur yàlla tabaraka wa taala bi léegi muy wax yow doomu aadama bi xamal ne lépp li nga jëf sa bopp waaw lépp li nga jëf sa bopp boo defee lu baax sa bopp boo defee contrôle bi tamit ba léegi sa bopp moo tax bu ñu demee xool suratul fussilat buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu baaxee ci aaya bi mu ne ñu man amila saalihan fali nafsihi képp ku jëf lu baax sa bopp nga ko defal wo man asaa képp ku weddi ki ñaawal képp ku def lu ñaaw fa alayha sa bopp nga ko defal wa ma rabbuka bi zallamin lil abid déet sa borom mu di tooñ jaamam yi yàlla du musa tooñ jaamaam yi te du buur buy tooñ jaamaam yi de waaw ba tax na buur yàlla ne ñu man amila saalihan képp ku jëf-jëf ju baax fali nafsi nafsihi sa bopp nga ko defal waaw boo waxee lu baax sa bopp boo jëfee lu baax sa bopp boo doxee lu baax diggante nit ñi sa bopp waaw lépp li nga wax ci lu baax sa bopp nga ko waxal buñ lay fay yow lañuy fay ci lu baax loolu képp ku jëf lu baax sa bopp buñ lay fay yow la ñuy fay par rapport ak lu baax loolu nga def waaye nag yàlla nee na bi léegi waman asaa képp ku ñaawal képp ku jëf lu ñaaw ah fa alayha sa bopp bi léegi wama rabbuka del sa borom bi zallamin mu di aji tooñ lil abid jëmale ko ci jaamaami yàlla du tooñ jaamaam yi yàlla du tooñ kenn ci jaamaam yi kon mbokk yi lii bi léegi da loo xamante ne doomu aadama képp ku la bañ a épargnel lu baax bu dee nit ñi amuñu kenn ku ñu war a épargnel waaye kenn ku nekk na nga épargnel sa bopp kenn ku nekk na nga géem xool la ngay dajaleel sa bopp ci lu baax waaw bu fi nekk di dajaleel ma sàmb bu fi nekk di dajaleel ma demb nanga nga dajaleel sa bopp ndax loolu amaana mooy la lay njëriñ ndax nit ñi amuñuy jot ñuy dajaleel keneen lu baax waaw buñ koy def tamit amaana cellange ba tax yàlla di ko war a mën a accepter loolu du ci war a mën a nekk waaye ku la dajaleel wut lu baax ki la épargnel wut lu baax képp ku la sàqalut lu baax xanaa yow war nga war a mën a sa bopp lu baax war nga wara mëna mën jëfal sa bopp jëf ju baax ba tax na yàlla wàccoo na ak ñun mu ne ñu képp ku def lu baax sa bopp képp ku ñaawal tamit sa bopp waaye déet sa boroom mu di aji tooñ jëmale ko ci jaamam yi kon amalu saale jëf ju baax duñ ko fay kenn ku dul ki ko jëf waaye képp ku ñaawal tamit képp ku def safaan lu baax li duñ ko fay kenn ku dul ki ko jëf kon ndegem mbir yi noonu lañu ñu nekkee nañ leen géem a góor góorlu nañ leen géem a taxawee amalu saale suñu kemtalay kàttan su ko defee buur yàlla mu daldi ñu fay keroog bu ñu dajeek moom bés pénc ñu góob résultat amalu saale mbokk yi waxtaan bi jeexul Rewmi FM 97.5 lii lañ leen andil ngir ñu fas yéene ko wéttalantik yéen ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji di jub ci kàddu gi ñu sante ko yàlla lu ci déng ñu ngi koy tuub di ko jéggalu nasaluka ya allah an taxfada bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslih illahumma aimmatana wa wulaata umuurina allahumma ya rabbi ihfad bilaadana min alfitan ma dahara minha wa ma batan baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته